wa fii mi atay dirhamin mu ne war na ci ñaari téeméeri dërëm shariyin yi ñu ko jóg yoon sharia aw ashrina wala ñaar fukk dinaaran ci dinaar luy door yoo xam ne mat na ñaar fukk faak sara ba ëpp ko aw mu jàmmain wala bu loo xam ne dañ koo boole dañ ko dajale min huma ci ñoom ñaar muy lii di ay dërëm lii di dinaar mu nekk nekk tey téeméeri dërëm ak fukki dinaar nga xam ne bu ñu boolee ñoom ñaar mu mat aska faak sara aw mu jàmmain min huma bil jusi ci xaaj ñu xam kii fukk la kii téeméer la yu mel noonu bu ko defee daañu ci jël robool usri kaaru dixième bi ñeenteelu fukki gannaaw ñaari téeméeri dërëm juróomi dërëm lañ ci génne ñaari téeméeri dërëm buñ ko seetee nga xam ne ci la asaka war ñaari téeméeri dërëm booba dina ni ñu xiyaasee woon rubo dinaar dinaar bu ñu ko multiplier par 4 muy benn dinaar rubo dinaar bi ñeent ak tranché ci jamono yooyu bu ñu ko multiplier par 4 mu soog a nekk valeur benn dinaar ñu multiplier ko par 20 muy ñaar fukki dinaar boobaa nag ruboolu usri mooy la ca war te ruboolu usri bi moo doonoon rubo dinaar mooy ñeent ak tranché dinaar waaw rubo ba tey moom it daana ci parce que fukk yi mooy kii ñaar fukk yi kaaru kaaru dixième mu quarantième quarantième kii nag kaaru weñ ci waa nisfu la rubo rubo dinaar waaw kooku itam kooku defe naa ne quatre-vingtième la war doon waaw ah kooku mooy kii bi mooy dërëm ñaar téeméeri dërëm yi isrina dinaar nag moom moom nisfu bi la ba tey mooy quarantième quarantième dégg nga kon moom lay wax toujours gis nga toujours suñu dee wax affaire u dot maanaam jur ci ci sëy maye fii dañ koo tuutal ba nga xam ne ñii wax ñaari téeméer ñii wax ñeenti téeméer waaye naka jëkk mën naa leen baaxul de. lan mooy trois cent mille rubu dinaar. waaw maanaam dërëm yi. waaw topp na ko ba moom juróom daal dem na ba laajal ko ne ko ndax diir yi tudd mu ne waaw loolu. bu ko seetee mu ne dafa naa ne xaalis ci dinaar yi tam xaw ma kii tam. dërëm dinaar yi tam wala dërëm yi tam. dinaar yi daal bu ñu ko seetee mu daal. waaw wàllu or bi. waaw moom daal dem na ko ci ñi nga xam ne ñoo ngi ciy dëkk bi. waaw laaj leen waaye diggante ñu ko jox daal. ñu ko jox ñu ne moom. capteur waaw topp ma daal am na topp waaye xam naa ne xaw na wuute ñu mooy. noonu ni ñu koy def ci man mosuma ci ànd de daanaka boo seetee kër yu bari ci réew ci kër yu jàngkat yi def nañ seen kii waaye dañ cee gàttañ gi trop dañ cee gàttañ man dala mu ci benn bu ma mas a doy man bu ma mas a am fekk dama naa ni man day lii ànduma ci de lu ci aju ci man daal ndax daal dafay dafa dàqante sax nag lii xarot ci te it gannaaw rubo dinaar ci la ñuy dog loxo ci ku sàcc valeur bu ko mat tëgg lay jar ñu dog loxo nit ki du doon lekk bi dégg nga dana mat loolu dana mat loolu man xam naa ne moom moom moom dana ko mat photocopie wala photocopie mu xool ba xam parce que man daanaa ci def ay nattale yu bari waaye yëpp xam nga fii ci réew mi dafa variation bi dafa gaaw xaalis bi ni muy dévaluer day gaaw trop te itam ci marchandise yi ñu koy mën a nattale itam daf ci bari yoo xam ne dañuy changé dañuy changé dañuy changé bu métti ay saaku ceeb ak yooyu yëpp waaye yooyu yëpp xam nga ceeb itam taxawul te léeg-léeg mu bari même bu fekkee ne fii nekk na lu stable itam fa muy jógee mën na bari mën na ñëw te itam dañ koy fixé comme dañ koy fixé ki koy fixé mooy seet lu ko neex mën na bañ a nekk valeur ba loolu boo ko ci kii itam man ci yu bari daal laa ko daan seet waaye daal man daal xam naa ne sama xol mosu cee sedd waaw def maanaam farata ji dañ ko dul matal ba noppi lu dul farata du sunna ñu ñu réel ko def ci yu nekk boo seetee na fii itam maa ngi bi ñu daan wax ñetti téeméer itam ñetti téeméer yi booba boo ko seetee léegi mat na trois cent mille waaw waaw waaw exactement waaw xam nga nag sëriñ si ñu si bari nag xëy na mën nañoo jàng sax waaye yeewute dëgg xam xam jamono xam ni moom la ñu moom la ñu sori moom la ñu jógewul dara dara dara nag wuu moo ba waaw moo baari fi ko kon ñu ne kon rubbul aussi kaaru dixième bi daal mu ne asaka xanaa kon bala ñuy génne asaka ci alal day fekk alal ji mag moom ko koo xam ne togg nañ ko jëf nga xam ne macher nu mu ne ba indi tifli donte xaleel bu nàmp ko moom ku juddu itam doon na alal rek asaka wax na ci wala ñu may def asaka aw maj nunin wala dof dof li mu am alal bi mu am asaka wax na ci ci génn aw naqasat wala mu wàññi ko xam ne dafa matoon masalan bu ñu seetee ñaar fukki dinaar yi du ko mat wala ñaar téeméeri dërëm yi du ko mat waaye nag benn dafay dërëm yu am valeur benn ci sikka bi wala bu dee lu ñu tëgg ci tëggiin wu rafet bi ba nga xam ne bu ñu ko jaayoon dañ mën nañ cee am lu mat ñaar fukki dinaar wala ñaar téeméeri dërëm yi woon nga xam ne kon bu ñu seetee valeur bi mat na ko waaye bu ñu compter du ko mat bu naq sa waaw kooku itam mu ne bu fekkente ne dafa wàññiku zina zinatu danaaniiri aw daraahimi min wasni danaaniiri aw daraahimi shar'iyati ka xabatin aw xabatin min kulli dinaarin aw dirhamin waraajat waraajat fekk mu jar ka ka kaamilatin lu mat la na muy jar jar na ko mo dégg nga aw naq sa wala mu wàññiku bi rida bi rada ati aslin ci ñaawu cosaan or bi daal dafa setul trop bu ñu seetee ñaar fukki bi door yi nga xam ne moom asaka war na ci waaye bu ñu seetee or bi rafetul dëgg noonu noonu la wàññi ko aw idaafatin wala dañ ci yokk dañ ko rax dañ ci def xaalis wala leneen wala xànjar ak yooyu waaye waraajat jarat na ka kaamilitin bu ko seetee jar na la ñu lii ci des di jar te mat na lim bi wàññiku gi mu wàññiku daal mooy ci kii bi maanaam valeur bi daal rafetaay bi wala kii bi moo wàññi ko moo matul ba tey asaka dana ci waar est-ce que dégg ngeen. waaw kañ wa illaa su fekkee nag du jar li yu baax yi jar kenn nangu ko koo jënde xosiba ñu nattaleef ñu regleef alxaalisu la ca sell fekkee ne dañ ci yokkoon xaalis ñu seet li ciy or après nu mu war a toll in tàmm ndem mat na al milku moomee nit ki moo ko moom lépp kenn ku moom benn ñu ko bokk ndax bu ko bu ko ñaar bokkee kenn ku ci nekk dañu faaw la nga ci am mat asaka soo ko war a mën a génn asaka waaye bu fekkee ne benn lu mat asaka la ñaar ñu bokk ko duñ ci war a génn asaka waaye bu fekkee ne nag kenn ko moom mooy in tàmm ne mat na al milku waaye su fekkoonte ne da ngaa moom lii lii am lu ci aju bor wala xàq keneen yoo xam ne ci nga ko war a génne ci war du war dégg ngeen ne wa xawlu xayril maadini ak ayub yu dul mbell wa xawlu xayril maadini masalan su fekkee ne mat na xayril maadini mel na ko tey rikaaz wa difnul jaahiliyati waaw xoms bi dañ daan génn bu fekkee nag lu dul maadin ak rikaaz wa amma huma fa zakaatu bi wujudi rikaaz yi wa ixraajil maadini wa tasfiyatihi qaal wa ibnu xaadi xam nga su fekkee ne rikaas la moom xumus bi la ñuy génne imaam bi moo ko moom xamoon ngeen lu mu doon lu mu tekki lu mu gisoon ceeb saala mel nag rek léegi ca maam ya dencoon nañu fi benn njax boo xam ne or la def wala xaalis wala yooyu te kenn xamatul ko ko moom kenn moomatu ko léegi ku ko ku gasantu ba jot ko wala nga def dara ba ñoqi ko yow yaa ko moom waaye nag cinquième bi na nguur gi moom ko di jox leen léegi nag rikaas loo xam ne du rikaas du du maadin waaw waxee waaw day dellu si bala ci asakay war doo ko génne rek ni nga jote rikaas bi rek nga ne daal man for naa fi ndaa lu def or wala lu def xaalis fi saa si ngay génne léegi xumus bi fekkente ne bu fekkente ne nag maadin itam bu ñu ko seetalee rek waaye bu dee leneen lu dul moom moom faaw mu toog ba at mi da nga koy moom ba mu am at asaka soog ci war waaw du maag waaw kañ moo xam la xëy du maag mu ni wata àdd dat limoot na waruk génne asaka bi ta àdd bi yii ci ci limu at yii dellu si at mu ñëwee rek feeg yaa ngi ko denc amee ko at mu ñëw nga génneel ko asaka donte génne loon nga ko daawi bu ren ñëwee nga génneel ko fii lan fii mu da atin ci lu ñu dénkaane wu mu tajareñ ak loo xam ne dañ cay yaxantu fii ci moom bi ajiriñ ci yoon li nga xam ne yaa ko moom waxtu wala neexee jot ci dañ koo dénk diw mu ne fa ak mu ñëw war nga koo asakaal feeg wàññikuwul ba manqué nisaab wa mu tajëriñ fiiha bi ajëriñ waa ji da nga ko jox sa alal muy commerce du associé de bokku ci yoonam néewul ci yoonam néewul ci bénéfice yaa moom lépp waaye yow da nga koy fay léegi ñëwal jox naa la un million nga demal ma dëkk sàngam am na or wala dëkk sàngam am na nàngam léegi bu ñëwee benn mooy jaay wala nga jox keneen mu jaay alal jooju muy ci loxoom waaye waxtu wala neexee jot ko ndax lebaloo ko ko associé wu leen da nga koy fay kooku kon wane ne ne yaa ko moom bu baax waaw kooku nag at mu ñëw rek da nga ko asakaat wuti naa bu fekkoon ne bor la boo xam ne joxagule ko mun loo ci jot kon waxtu woo ci jotee rek bu kii leen nga nga koy kii laa maxsuubatin du ca gi du ñu fëkk nit ki dafa ëpp doole waa ji rek bële fi ko ba jël alalam su fa amoon junni atit du ko war a asakaal bis bi ci jotee rek boobaa la koy war a asakaal wa madfuunatin ak loo xam ne dañ ko suul waa ji daf ko suul xamatul fu mu ko suuloon wër na ba tas xamul fu mu nekk du ko asakaal bis boo xamee ne feeñ na jot na ko nag waaw waaye bu fa amoon junni atit tant que jotu ko bu fee bis bu feeñee at yi passé di ko di ko asakaal wa baayati naka noonu aji réer alal bi daf ko réeroon xamul fu mu nekk léegi mu am ay at bu ko gisee du ko asakaal at yi passé benn rek waaw kañ wa mad fuwaati naka noonu alal joo xam ne dañ koo dañ koo joxe ala anna ribha ci àpp naka li nga xam ne mooy bénéfice bi daal li la amili ñeel na ki ciy liggéey bi laa damaanin te bu sànkoo ne il n'est pas garant bu lu ci yàqu du fay du ko garanti da nga yëkkati da nga koy dimbale rek nga yëkkati sa cinq millions wala vingt millions jox ko da nga ciy liggéey sa mbokk la wala sa xarit la même su réeroo itam doo ko fayu waaw sa yoon néew ca ndax yow demandé woo intérêt demandé woo dara du bor sax nga ko jox rek bu fekkoon ne yow bu réeroon bu réeree mu fay kooku moom bu réeree mu fay moom day am xorriya bu mat
ko dal ñi ñi ñëpp daal dafa mel ne léegi alal bi nekk ci yow waaw wala fa mu nekk yow mën nga cee liggéey bi ci def bénéfice waaw booba ngay loolu yónnee rek moom asaka waaw waaye bu nekkul ci yoo xam ne mënuloo cee jot waxtu boo bëggee jot doo ca mën a jot nekkul itam di la liggéeyal loolu bu nekkul ci wetam da nga xam ne ki mu nekkoon dañ ko garanti moom du la waaw asakaal waaw kañ ndax demande bi la ji waaw bamaan bi la wax ñu ngi leen tey jii man bu ma yoroon tey jii sama bis di commerce fële léegi jox benn waay fële trois millions bu mu dem ñu ngi liggéey man ko léegi li ngay def mooy alal bii ci boobu léegi abal naa la nga ci liggéey bu dee man man maa ngi nekk ab commerçant waaw am naa yaqin ne alal ji moom mu ngi def ci moom bu ko defee léegi man bu ma nee bay asakaal sama alal bi te am naa yaqin ne alal jaa ngi ci moom dama koy calculer waat waaw mu wër ne mu ngeeg moom ala kulli xaal ndax même bu bu réeree wala mu perte daf lay fay la moo tax mooy bi bi dama mu ni wala zakat di asaka di war fii ay nin ci keer faqat rek wërsëg boo xam ne doon ne fat na ko kañ in lam yaalam lim xamul bihaa ca xamul ne am na alal moom papaam gaañu na xamu ci dara wactin am na keegu bari moom léegi moom lay revenir waaye xamu ci dara ñu toog ay at mu xam ko gise wa dara waru ko ca awlam tuuqas awlam tuqaf wa kii de yàq la ba tey rek kii ngeen ko rek ci fii ngeen ko waaw awlam tuuqas kenn xamul awlam tuqaf wala taxawalee fat ko taxawalee fatu ko illaa ci war illaa baada xawlin awlam tuqaf minal xaakim bu fekkoon nag léegi dafa am xaq ju war ci kii bi ba xaakim bi ne ko léegi kat sañatoo maanaam suuf bi sañatoo jëfandikoo ci alal ji dara dañ ko fi teg ba nangam xam ne léegi waxtu woo ci bëggee jot doo ci mën a jot mooy mel ne yowoon rek nga xam ne bu loolu amee nag kon moom lu mu fa yàgg yàgg asaka du la ci war ndax mu ngi mel ne yaa ko moom waaye mënuloo cee jot du waxtu wala neexee jot ci illa baada xawlin daree nga jot ci mu toogaat at ci yow baada qasmiha bu dee ca wurusat ja gannaaw bañ ko séddalee buñ ko séddalee aw aw qabdiha wala nga ngëb ko nga xam ne léegi alal jii kat ba nga ko waree doon yàgg na waaye jotuloo ci ba bi nga xamee nag léegi jox nañ la ko nga téye ko ba mu am at ci yow léegi asaka wax na ci aw baada qabdiha de wala bi wakilin fay naa lim ورثت وما ضاع عليها في عين ورثت مدى ولا لم تعمل ولا زكاة في عين فقط أي دون الحرث والماشية وقد سبق حكمهما من أن المورث إن مات قبل إفراك الحب والسيد الصبر عليكم السلام زكى تكرم تقول ورثت maanaam ci biir ISRA bi ñu ne illaa ba'da xawlin illaa ba'da xawlin ba'da qasmiha. Foofu mel ne dafa wute moom إلا بعد حول كسرى بها مم- وابوين ولا إلا بعد حول بعد قسمها أي بين الورثة أي أو بعد قبضها ولو بوكيل فإن علم بها وقفت من الحاكم وقفت من الحاكم عند أمين زكيت لما مضى من العوامل من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أو لون آخر والمعتمد مذهب المدونة وهو أن العين الموروثة فائدة يستقبل يستقبل وارثها حولا بعد قبضها wala alim bi waaw waaw waaw waaw waaw loolu sa yaram riir waaw wax na dëgg sax looloo gën a dëgër sax nag te mooy mazhabul mu dawana dégg nga mu ne wala muusan maanaam du asakaal itam kee ku ñu dénk bi tafriqatiha dañ ko jox rek ne ko foofu gis ko am ku ñuy bëgg a génne lu yaa jox ko nangam wala joxal ma diw nangam joxal ma diw nangam joxal ma diw nangam nga téye ko mu yàgg ci yow itam téye gi nga koy téye asaka waru ca génn na loxo ki ko moomoon yow mi ngi ci sant loolu yaa ngi ci loolu moo ci sa sa wartuwaat sa waat doo ko kii wala zakat fi aynin muusan bi tafriqati ala muayyanina aw xayrihim wa marra alayha xawlun bi yadi lwasi qablaha وما في موسى قبل موسى قبل الحول وخروجها من ملكه بموته فإما ذكر على ملكه ci war xamne mën ko jot daanaka su war itam asaka ci alali ku ñu moom wa madinin ak ki nga xam ne bor yi dañ ko ëpp doole bor yi wër na ko wa sikkatin wa madinin waaw koo xam ne kii waaw maanaam ci alal ji alal ji kee moo ko tax waaw kee kee kee lay wax bu fekkee nag bor yi ko war nag moom mën na mën nay kee mën nay bañ di kee waaw dafa bari bor rek maa xam ne moom ko ci alal ji kee ji la wax waaw kañ du ko ci war ndax bor yi daf ci ko ci war wa sikkatin sikka itam du waral kii asaka masalan tey danga am fukki dinaar ak juróom waaye maskuuk la sikka gu rafet ba nga xam ne jox na ko valeur u ñaar fukki fukki ñaar fukki dina sikka du waral du waral asaka wa siyaaxatin wala takkaay la waaye dañ ko or bi bu ñu ko seetee nangam la war a jar nangam jëru àggul ñaar fukki luy door waaye nag ni ñu ko tëggee tëggaay tëggee ñu rafet bi boo ko jaayee dana jar nangam du tax asaka war ci wa siyaaxat wa jëwdetin wala rafetaay bi or bi daal pur dafa kenn xamul ñaata karaa la dafa fii daal dafa am dafa set daal bu mu ëpp te fii rek lu tax matul matul kii bi matul lim bi matul poids bi du tax asaka war ci wala nga xam ne dafa mat ba noppi lu ñu war a génne asaka nga seet ne ci poids bi wala ci limu dërëm yi wala dinaar yi mat na asaka nga di ko ko génneel sikka gi nag ne yokk valeur bi nga bëgg a asakaal sikka gi itam du sotti loolu itam du du dox yéen takkaay itam loo xam ne itam dañ koy takk rek boo amee tonu tonu or sa takk rek nga si jublu da nga koy takk ba in takastara donte dammatoo na itam nga xam ne takkatoo ko it ndax dafa damm waaye nag in lam yatahashim fukk nul dafa broyé dafa moxañoo bu defee noonu na nga xam ne moom comme tibre la comme or bi ñuy soog a gase génne ci suuf la asaka daf cee dal di war waaw bu amee at ceewa waaw waaye nag fekk walam yéen mi te yéenewul woon adama islaahihi ñàkk a defar nga xam ne rek léegi yàqu na bu ko yéene woon na nga tibre aw kaana wala mu nekk li rajulin takkaay li boobu góor a ko moom ba tey moom itam du ci war aw kiraa in wala dañ koy luyee ku bëgg a tukki fenn wala nga bëgg a dem ci xew wi rek ah muy jigéen ñi dañuy ñëw di la ko di ko luyee bu ñu ko takkee dem ci xew wi ba dellu si fay la kooku déedéet day liggéey liggéeykat liggéeykat la bu mel ne fas wi liggéey wala mbaam mi xëcc watir bi wala charrette beeg yooyu la mel mu ne ah ba faw moom daal takkaay daal asak mu ne ah illaa muharraman lu dul takkaay lu ñu araamal takkaay lu ñu araamal
mais maanaam ci misaal léegi maanaam loo xam ne li arabe la indi or ci góor moom wala jigéen sax d'accord or ci góor waaw maanaam tey Maanaam?
misaal bu fekkente ne léegi tey xeetu or la moom waaw lépp dafa arabe ci góor waaw ci takk waaw bu fekkente ne léegi nag moom wàllu kii la bay nañ ko ci léegi lu mel ne ci tey bëñ ci lan or wala ci or wala bay nañ ko ci jiw wala lu mel ne ci bon daan daan taxaw ko tuuti bëñ nan li ngeen ko déggee waaw xaaw gi wëñ gi wëñu or gi lu tax bëñ bi dafa dafa yëngu mu bañ mu deñ mais lu tax euh, fabul beneen métal yeewe ko ko waaw kañ dañu bañ mu soppi ko gémmiñam indil ko maladie léegi nag may nañ ko loolu waaw ko kon ci kon ci xalil bi dagan la waaw waaw.
lu mel ni wàllu bakkan itam waaw wala léegi tey lu mel ne ci téere balxaan boo xam ne bi léegi jaaro bi wala waaw wala jeex waaw wala téere balxaan boo xam ne léegi lu mel ne fu mu koy dugal noonu waaw.
frontaay wala jaasi yoo xam ne jaasi xara dinaa nag mu def léegi lu mel ne xeej ak yooyu moom coow am ndax dañuy wax ne moom jaasi yi yoo xam ne yemale ci loolu wala waaw wax nga yi dagan kon ci takkaay yi da- yi daganul ci takkaay nag moom waaw dañu mel ne ci mooy di jëfam ay baraada di jëf ay takkaay la ak lu ñuy takk ah ceeb ak lamag ci lan ci góor or waaw lépp luy or rek ak même lu dul or bu dee xaalis nag bu dee xaalis moom dafa am moom fa jaaro yi jaaro lañ ko ci may wax rek may nañ ko jaaro jaaro yi waaye ceeb ak lamag yooyu dafa waaw waaw ana lan nag moo aram ci góor anaab ci jigéen ci takkaay
maanaam tey jii ci li nga xam ne mooy nga takkaay Hmm.
mu ngi def ay baraada wala muy def ay ndax waaw takkaay loo xam ne daf koy takk ci yaram nag wéñ gu ñuul waaw wéñ gu ñuul aram na ci góor ak ci jigéen nu dem bon bu doon wax ne léegi maanaam bu dee lu mel ne ay baraada ki yu mel noonu dafa waaw ah kii la waaw dafa a war a waaw waaw kañ waaw sakaar ndax loolu dafa aram na waaw kañ dañ ko tere dañ ko tere le- ndab yi moom même bu dee weer bi ngay naane nga def ko or wala argent dëgg na ko noonu timsaal yi moom foofu la jëfandikoo bi moo koy wayafal ba mu ba ñu kile ko sib sibeel bi dem waaye bu dee lu jëm ci métal moom métal yi ñu tere moom tere nañ ko bu jeex mu ne waaw foofu itam ñu ñu am beneen xaat bu wutee la waaye xam naa ko ci ban fii ci lan ci wàllu loo xam ne lii lii kiraay
lil kiraa waaw lii lii daxaar wala lii kiraay ñoo xam ne ñoom dafa xilaaf am na ci ñii ne ñii ci maanaam ndab yi wala kile yi ne ndax ñu mel ne ci ay takkaay waaw takkaay léegi maanaam bi da koy denc denc ko di góor bi wala waaw waaw mooy bi ñu wax léegi waaw waaw waaw li nga xam ne ñoo ñoom ñii dañuy ñu jot daa naa mel ni dafa notoon moom masale waaw xam nga masale yi bu fekkoon sax kii bi dërs bi day gàtt daañu mën a dem ci xilaafaat yëpp waaye eh, daanaka boo xamee yax bi nag boo fi jógee gis xatkaab da nga xam lépp moo tax boo jàngee mat na bi nii rek ba nga xam ne mokk na chara bi léeg-léeg mu waaye li muy junj itam boo ko seetee def dul àgg ca fa mu jóge dëgg dëgg ak na mu waree waaye boo gisee mel na xatkaab wala zarqaan yi ñoom eh, daañu leeral daañu indil masala yi ci def tafarroo yëpp am na am na benn ci ñoom rek xawoon naa dafa am ay tâche yooyu ah ñu delloowaat ko mais am na yeneen ñaar yu ñu wataat sa jëlan ci fu mu Cees la la Cees la ca tukulóor ba la jógee waaw naa ko mu tënk ñu wax ñu daal di waaw waaw xataab de moom mat naa am ko xataab bu baax la baax
mu ne illaa muharraman lu dul lu ñu xaraamal bu boobaa daf koy asakaal aw mu àddan wala loo xam ne dañ koo xaroo li aqibatin daf koy denc pour ay sëtam moom daal léegi jëriñoowu ko waaye alal la or la wala xaalis la wala leen mu doon daf ko fi wëcc pour daal su fi jógee pour ay sëtam ak yooyu bañ tumuraanke ak yooyu dana ko asakaal aw sadaqin wala daf koy def ngir can maanaam dot bi ñu waxoon Mm, bu fi jógee da- ba- dafa dafa bëgg daal joxe ko takke ko soxna daal si tax denc bay am toolam mooy la waaw dana dana ko asakaal aw man wu yéen wala muy loo xam ne dañu yéene bii ci moom ak tijaaratu yoo xam ne commerce loo xam ne da nga ko toppatoo gar- garder ko pour bu ci def commerce loolu da nga ko dafa doronkeef ko bi jawhari nit ak perle fekkente ne dafay loo xam ne lii dafa am li mu ànd boo xam ne benn asaka war na ci wala asaka waru ci li nga xam ne nag moom ci boppam mooy moom la ñu doronk ci kaw muy or bi li mu waxoon ci man def naa ci xalit bi bu fi bu fi mu ma waxi wala mu xasaati wala mu dabba bi wala xalqati wala xalqati waaw noonu ko waxoon waaw bu li mel ne tëmbiir léegi bu fekkante ne liñ ko kiyee ci kaw xoobee ci kaw dafa mat asaka kon dana ko asaka mu ne wa indu saa doon def ko doon bi jawharin mu ànd ak yeneen perle ay pierre précieuse mu ne wa zakka asakalaat na azinata mandaxa bi mu nga mooy li ma waxoon lam poids bi lay seet innu saa bu fekkee ne dañ mëneef na koo dindi bu fekkee ne mëneef na koo dindi bi laa dara bi te du yàq ndab li wala li kii bi wa illaa su fekkee ne nag kenn mënu koo dindi ci bu ñu ko dindi rek mu yàqu taxaraa mu ñu nattale kon poids bi nu mu war a toll ñaata dërëm la war a doon bu dee xaalis wala ñaata nuy door la war a doon bu dee or pour ñu génne asaka ji mu ne wax bu ma tàppee fat na rib xaw tono maanaam bénéfice bi aslihi jëme ci cosaan la xam ngeen ko kooku moom ça va sans dire ah jaaroon jàngoon nañu dégg nga muy misa misaal ci nirale gi ba tey mu ne ka xàllati muktaran naka xàllay mooy produit lu ñu luwee li tijaarati ngir yaxantu kooku itam xàll ji bu ñëwee maanaam kii dafa luwee sa kër am nga benn immeuble bu mag ñu luwee ko léegi li muy produire li ñu lay fay da nga koy jubale at boo amee at nga asakaal ko nga asakaal ko mu ne nag comme ni mu waxee woon ne waaw kooku weesu woon mooy li ñu waxoon walaw ribxa daynin xam nga ar ribxu wa wa duma ar ribxu li aslihi mu ne walaw ribxa daynin doonte sax bénéfice u bor la woon da nga ko asakaal waaye laa iwada koo xam ne déetug wat la koo ñeel ko indehoo fa moom waa ji amul leneen lu mu ko fayee polis bor bi waaw si si waaw xam nga bénéfice su bor moom bi ñu la ko waxee te xam nga comme bor moom intérêt moom dëgganul bi ñu la waxee rek ribxa day nin bor bu la war yow bor bu la war boo xam ne mënuloo jaar feneen foo xam ne mën nga koo teggi fi yow ay almadinu ki nga xam ne moo amee bor bi alladi ittajara fi day ni bénéfice bi sa àla la yaa ko moom bon léegi def nga ba mu mat nisaab daf koy asakaal waaw fekkoon nag am nga nag loo watte bor ba fekkee nit nag kon waaw waaye bu fekkente ne laa nu mu ko waxee sax laa iwada lahu indahu fa moom waaw xam nga kooku mooy tax nga yaakaar nag ne doo génne asaka bor boo xam ne amuloo leneen loo fayee xam kooku day daal di bëgg a wane ne kon bénéfice bi nga ci am te yaa ngi mat na nisaab waaye yaa ngi war a fay bor ba amuloo loo ko watte leneen ngay daal di jàpp ne kon doo war a génne asaka dafay génne asaka nag mais asaka ci bu boobaa yaa ngi koy compté ci rëbb bi rek nga koy génne ca bor ba lay mën a wax bu ñu la ko joxe woon waaw maanaam asaka bi rëbb bi ba mu ñëwee am ci jotee maanaam xanaa li ñuy wax ne bu fekkente ne as maanaam wa xawlul wa awlul ummaati wa xawlul ummaati xawli xawli xamaa mun awlu nasliha kat mu waaw awlul awlul ummaati waaw man ñu ñu ciy tey ñu ne wa duma rek li ak li waaw waaw ci sànni boobu waaw loolu lay wax bu ko defee léegi day moom ñu xam ne ñu dugal léegi day rek ko day cosay déylu waaw xam nga cosaanel déylu bi moom moomu ko woon moom moomu ko woon loolu moomu koon xam nga sañu ko asakaal waaw loolu kay loolu nga bëgg a wax de waa déedéet maanaam tey Hmm.
waxtu war la koy war a asakaal asakaal bu mooy tey ba lim ci am waaw.
bu matee bu bu ayee waaye lu dul mu nekk mu diir bu fekkee mu diir la mu xam nga bu bu weer wi jotee rek dañuy naan kër luy fekk ci loo xam ne def nañ ko asakaal waaw, waaw.
waaw bu dul bu dul mu nag di mu xatakir moom faw dañuy nekk ba mu jaay léegi nag bu fekkente ne dafa toog ak ji saa yi di ñëwul wala day ñëw rek di laaj ci day bu fekkente ne lii nga xam ne ah, ah, am na aslu waaye aslu bi moom moomu ko mi ngi soog ak am lu mu moom moom nga xam lim moomul bor war asaka waru ko ci nga bor moom bu ñu la ko lebee asaka waru ko ci waaye lii nga xam ne moom moo ko moomal boppam moom donte cosaan li yàgg na itam du ko asakaal ci cosaan yooyu la ndax balay asakaal rek mat nisaab bu ñu matee nisaab la koy asakaal moom maanaam bu ma tey bu ma tee misaal maanaam waaw.
am na yow ak waaw waaw maanaam tey jii léegi man leb naa xaalis waaw ma dem léegi tey noppi ne léegi tey lewel na waaw leb naa léegi tey cinquante mille francs waaw ma dem di ci ci commerce waaw waaw jàpp naa ne léegi cinquante mille francs naa ko leb ci vingt-neuf Waaw.
avril deux cent quatre-vingt-dix.
waaw parce que léegi man sama ma dem di ci commerce waaw moo ci commerce léegi tey Mhm.
ba nga xam ne rek gis naa ne léegi tey vingt-neuf avril quatre mille neuf cent quatre-vingt-treize ñëw na waaw ma gis ne léegi man ñu kat leboon naa xaalis boo xam ne bii liggéey naa ci lu war a mat at ak waaw li ma ci liggéey lu war a mat at léegi bor ba moom waxu may waxam Waaw, waaye 50 000 waaw te waxu may wax waaye cinquante mille francs yi bi ma ko tegee fële balance léegi li ma ci am benn bi waaw mat na at fi mu toll nii sama loxo waaw bu boobaa léegi man suñu war naa ko génne ko asaka ci ci foofu ci taat di waa ci ci jàpp ne léegi tey gannaaw man war naa ko lu war a mat at tam li di liggéey di ci liggéey di ci est-ce que liggéey yow waaw lenn ci nekk xam nga xam nga bu fekkonte ne li leer bu moo di bu fekkoon ne yaa moom cinquante mille yooyu la moom waaw waxtu woo amee nisaab bi nga ko dee asakaal ba fa nga amee woon cinquante mille yi lañ koy ndax yaa ko moomoon te alal la war nga cee génne asaka fekkente ne nag moomu la woon cinquante mille yi rebax bi rek nga moom waaw
lee du dugg si léegi rebax bi fa mu tàmbalee nga di ci continuer di commerce foofu mooy cosaan la buñ ca dellusee même suñu matee bu fekkee ne suñu matee nisaab fukki fan lañ ci teg nga agsi ci xawlu bi da nga ko génneel asaka
waaw maanaam day quatre-vingt-treize bi waaw vingt-neuf avril quatre-vingt-treize bi mu jël saa dama gis ne am naa ni sax waaw foofu laay tàmbalee nag léegi waaw kañ waaw foofu la mu ni fu mu tollati sax
man de moom man de moom ki nga xam ne dana Hum?
wala wala wala dafa day ñu jigéen ñu delloo xool rek waaw day mel ne léegi bu ma leen ak léegi dafa am lu dugat su mari aslihi boo ko moomee waaye mu ngi mel yow amuloo dara kon ma ngi génn ci biñ ne laa ay wala ndax xam nga fu muy commencé taxal ma ma ma ma expliqué la léegi noo ngi ci mois de janvier ñu ne ba la xaalis booy defee commerce léegi ngay def commerce def commerce def commerce def commerce février mars avril mai nga am téeméeri juróom xam nga dara war a guti noo ngi ci ban mois mars avril mai juin juillet août septembre nga am lu mat asaka octobre novembre décembre janvier ci nga amee woon lee déedéet février bu fekkee loolu rek nga amoon nga fa nga fa amee woon ci janvier doo asakal dara ndax boobu amagoo dara lu umat nag février ñu dem ba mars nga xam ne fi nga commencé woon am xaalis loolee li nga ci commerce nag moom fi mu motee fekk du doo lig booba fii nga amee woon réew boobu nga xam ne yàqu moom mooy cosaan li foofu ngay commencé as dégg nga ko léegi voilà mu ni wa zakka sinata in nusiya bila daran wa illa taxalla mu nga ca kanam wala war bi xadday dun laa iwaj waaw laa iwaj indahu wali munfiqin ba tey mi ngi delloo ci tàpp gi baada xawli ci gannaawam atam maa aslihi ànd ak cosaanam xam nga moom ni mu ni mu kilee moom syntaxe am dafa doy waar doy waar moom dafa mel ni moo ko si jubloo jaxase maanaam masala bii moom jàpp ko sax ni xel maanaam leer nañu waaye dafa mu convaincre ni daal xaw daal waaw pourtant c'est tellement logique nag logique bu rigoureuse sax la li ñu jëm nii ndax ah bi nu jëm de ah bon dafa defoon sax bi waaw bi waaw bi nu jëm da nga d'accord na d'accord waaw kañ wali mun fiqin bi tàgg moom moom kay dafa doy waar rek kii góor gii mu ne bu fekkente ne léegi alal ji li mu waxoon ne daañu tàppe tono ji mu ne daañu tàppe ba tey tono jëm ko ci alal yi koo xam ne dafa dépensé alalam gannaaw ba nga xamee ne at mi mat na ba noppi nga xam ne waroon na koo asakaal dégg nga ànd ak nga xam ne mat na itam atum cosaan la cosaanal ribax ba cosaanal ribax bi la ñuy wax dégg nga waxta siraa yi waxta siraa yi moom la misaal mu ne misaaluhu istafaada moom moom ci bopp mu yëg na ne ki ko doon saraa yëg na ne góor gi ni mu waxee leerul dafa dafa dafa dafa dafa feebar trop mu ne léegi dafa am fukki dinaar ci njaal bennu tam xarit nga xam ne at maa ngi soog a commencé fukki dinaar la am amagul lu mat asaka mu dem ba tam xarit bi dellu si mu jënd mu fab ci juróomi dinaar ci fukki dinaar yi mu amoon jënd ci beneen sila silaa juróomi dinaar yi ci des mu dépensé ko est-ce que comprendre nañ ngeen waaw waaw xanaa sax léegi mooy moom bi mu ne am na fukki léegi tey waaw.
muharram ba muharram dellu si waaw am nañ fi at mais wala asaka war a parce que war a bu ko léegi nag bi muharram ñëwee léegi de mu jël juróomi bi léegi da naa ci jënd marchandise waaw tam li nga xam ci juróom yooyu la mais juróom yooyu moom sànq na mu sànq ko waaw léegi waaw mu sànq ko léegi léegi mu mu jaayaat silaa ba mu jëndoon ci fukki dinaar ak juróom xam nga ne léegi bu jaayul woon bu bu sànkul woon juróomi dinaar yee dana am ña- ñaar fukki dinaar te kon asaka war ci waaw
léegi nag moom moo ko sànkoon te bi mu ba mu ba mu matee asaka ba nga xamee ne bu matoon dana ko asaka loola weesu na ak moom weesu na léegi bi mu koy jaay fekk na bu asaka doon cosaan bokkoon na ci cosaan li li nga xam ne bu fekkoon rek ko ñu génne ci asaka dafa war ba pare xam nga fii nga koy déggee buñ ne waxawlu ribxi awlu aslihi léegi bi mu amee fukki dinaar ci tamxarit mu toog ba dellu si nga xam ne tamxarit ñëwaat na xam nga bu matoon mu asakaal ko waaw non am na sama xar waaw waaye nag fukki dinaar la
waaw fukki dinaar la am asaka war a mu asaka waragu ci mu dal di fab juróom bi mu waree ba noppi bi nga xamee ne bu bu matoon asaka war ci ba pare mu fab juróomi dinaar ñu sàkk ko sàkk sànk ko sàkkal ko pexe juróomi dinaar yi ci des mu dal di ci jënd marchandise dal di koy jaay muy loo xam ne bu juróomi dinaar yem sànk bu ko sànkul woon dana mat asaka ñu ne ko lu taxoon nga di ko sànk ndax bu loola toog na ci yow lu mat at te cosaan la te cosaan loolu lu fi mën a judduwaat dañ ko ciy delloosi dañ ko ciy war a delloosi mu mel ne mu ngi fi ndax li mu fi toog ba am at ba noppi xanaa looloo la génne mu dem di ko jaay dañ naan ko waruloo ko war a jaay ah loolu benn ndax daf mel ne da ngay daw asaka ndax xam nga ne boo jaayee boo amee fukki boo amee léegi fukki dinaar rek fukki dinaar rek boo amoon fukki dinaar rek asaka war la mu dal di te yaakaar ne lee mu am ko mu dal di sànq juróom ñi dafa mel ne daf doon daw xam nga ki doon daw fekki woo bi ñuy jàng kii daw asaka de fekk moom waaye waaw waaye kii dafay daw asaka dafa doon daw asaka waaye bi nga xamee ne parce que lim ko ni mu jaayee ba am fukk ak juróom mu wóor ne juróom rek ko manqué te juróom yooyu moo ko tey jaay ko nga xam ne bu fi newoon mu asakaal ko ndax toog na at mu soog koy jaay mu soog a jaay juróom yi ñu ne ko nag yow da nga doon daw asaka da nga xam ne boo jaayee lii boo jëndee da nga am fukki dinaar juróom te kon asaka waat bi moo tax nga daal di sànqlee ba noppi soog a jënd nag jaay ndax at mi mu fi am loolu kay gis na waaye léegi ndax mën na ko dégg ni ci léegi tey loola mooy rek ci kaw bu fekkee day doon asaka waaye bu fekkee ne léegi daw ko ndax mën naa am yeneen condition yu ko arrivé exactement waaye ñun du ñu xam ndax dafa doon doom ji dañ koy notal ci rek ni dafa doon daw asaka kiyang ne tiis na moom dafa mel ne dañuy bénéfice su fekk na at bi jeex waaw loolu nag moom lañ ko jàpp ne bu fekkoon at mi jeexul at mi jeexul kon buñ demee ba at mi jeex loolu moom duñ ko compter sax duñ ko compter sax ndax cosaan li ba tey am na at waaye lim am moo matul nisaab matul nisaab léegi nag cosaan li ci boppam mu bàyyi ba mat at mu manquil ko nga xam ne léegi bu bu matatee itam asaka daf ciy dal di waar mu fexe ba matatul ndax sànq xaalis bi ñu ne ko nag da ngay fondu doonu nax yow sa juróomi dinaar yooyu nga sànq ndax xam ne yaa ngi am bénéfice fukki dinaar rek juróom te kon asaka war ci moo tax nga jaay ko ba doo dem
dégg nga waaw maanaam léegi foofu moom liñ ci déggee wala doog rek lii ni misaal bi maanaam dañ ci am fuñ ko maanaam fuñ fuñ ko ko xaw a fajee rek.
fuñ ko xaw a fële tuuti waaw parce que fóon bi mooy bi mu nee léegi tey waccaraa bi xam sat min selawata waaw léegi fukki yëpp a ngi waaw xam nga tëbagul jaay juróomi Jaay bi bi, waaw.
dafa jël léegi day maanaam fukki yi waaw bàyyi juróomi daal di xam léegi juróomi jënd ci Jënd ci marché marché bi bi.
jëndee ba nga tàmbali gën a mooy dal di barkeel.
sànq la de kon moom ñu ne ko da ngay daw loolu xeet la.
koy daw
loolu wala dañ ko en arrière loo àtte ko ci rétroactif waaw ndax dafa war da- ni mu jëfee tactique la xamuloo pour pour daw asaka rek waaw pour kon daw léegi asaka tey kii mooy sonu ci digg safaan bi bu fekkoon ne léegi tey Hmm.
bi mu fi amee at léegi waaw
xam nga dafay am at léegi tey mu bàyyi yenn juróom jënd marchandise waaw doo ko lekk juróom ñett waaye supposons léegi tey nga xam ne bi am amee at dafa lekk juróom yu dafa lekk gannaaw njëriñ nga xam nga ba wax na fii bi borom sera borom eh, mat mi di sax bi mu waxee ne xabla kii dafa ne baada waaw bu ko defee léegi tey gannaaw léegi tey infaq moom dañuy am baax de ciraay baada waaw mu ngi ci sera baada la wax te gis nga xam ne kii dafa doon xabla moom moo lëntal yëpp waxta la wax waxta moo lëntal yëpp kii nag ne ne kii nag ne baada baada sera kon ñu dégg suñu ginam fekk ne léegi tey infaq moom dafa nekk xam waaw kooku moom kooku ah d'accord mën na rëcc mën mu rëcc mu ne ak sa wastaqbala te mu jubal bi faidatin ci xarfet lu dolliku te jàdd loo xam ne bees na kooku mu jubal bi faidatin maanaam aji dolliku yoo xam ne lu jógee ne rek jógewul ci du bénéfice du ngért te jàddadat loo xam ne bees si na dafa jékki-jékki am alal joo xam ne benn daf ko donn wala dañ ko ko may léegi daf ci jublu dafay jublu at mustaqbala maanaam day nit ba at dellu seeti ndax lu- lu bees la soo xam ne amul cosaan bu muy dellu
léegi am maali waaw kañ laa an maalin jógewul ci alal ji mu amoon nga xam ne alal jee ko jur muy muy bénéfice wala yooyu in an maalin mu misaal ko mu ne ka afiyatan naka may duñ ko may comme ni ma ko misaaloon dañ ko may xaalis aw xayri muzakkan wala muy loo xam ne asakaaluñ ko dégg nga nga ne ko misaal mu ne ka saman ka saman muqtanan ni ki njëgub lu ñu doon woomloo nga xam ne kenn asakaalu ko kenn du ko asakaal ndax dañ koy doon woomloo léegi bu ko jaayee xarfet la faida la ndax du bénéfice du itam lu ak juram jur dina doon mën a xam.
dama mën a jigéen léegi maanaam fii ci aw xëyru mu sakkan bi Mhm.
maanaam tey ji nit ko nga xam ne mooy yor ay mbaam mbaam parce que wooyu waaw mu dema dem yàgg léegi tey mu jaay mbaam yi mu nekk xaalis ci loxo waaw ba tey loolu loolu mu xëyru mu dafa sakkan yastaqbilu waaye sax bu ne bii bi nga xam ne waaw waaw waaw yastaqbilu bi tamit xaw la
wala lu mu wala loo xam ne tey jii moom da koo bàyyi woon ci dara rek man dugg ci koom-koom moom.
waaw waaw woomloo dafa woomloo moom yàgg mu ne léegi say dama koy fàtte.
dafa koy jaay bu ko jaayee rek léegi ñëpp xaalis bi ak moom.
at bi yastaqbilu bi sanat mu ne watu bàmmu dafa sax de ah tey moom dafa sax waaye nag boo ko jëndee ba xarañe ko
wala loo xam ne tey jii moom da koo bàyyi woon ci dara rek man dugg ci koom-koom moom.
waaw waaw woom loo dafa woom loo yàgg bu ko jaay bu ko jaay rek léegi ñëpp xaalis bi at bi yastaqbilu bi sanat
damu su damu daf mu takkee naax sëkun aji wàññi ko aji ñàkk a mat léegi maa ngi ci daal wa in baada tamamin donte dafa wàññi ko gannaaw ba mu matee ba noppi li ci waat daañu ko tabbee mu saanee ci jëm ci beneen xarfat boo xam ne ko ñaareel bu nga amoon bu fekkente ne mëtul asaka mu ñàkk sa mëtul nisaab te dem ba mu mat nisaab at mi ay gannaaw dafa wàññikoon donte dafa njëkkoon a mat wàññikuwaat it léegi dem ci boole li nga xam ne moo dikkaat te bu ngeen boole mu mat asaka nga génne ko donte dafa fekkoon bu ñu ko mos yi daataan ñëw dafa njëkkoon a mat dellu wàññi ko waat nga xam ne bu ñu ko ci boole yi bu ñu ko mënee génne asaka ndax du mat nisaab léegi nag daañu ñu ne daañu ko tàppe boole ji ko defee ko réglé mu mat nisaab nga génne asaka aw saalisatin wala aji ñetteel da fekkoon nga am rasmaal boo xam ne asaka waru ko matul nisaab nga dem ba mu yàgg nga amaat leneen lu la dikkal jóge ci beneen wet nga xam ne dafay du mat nisaab soo ko boolee moo xam loola sànku na wala ma nga fa nga dem ba amaat leneen itam mu ñetteelu am am ñetteelu am am bi boo ko boolee bi jiitu ba dana mat nisaab nga asakaal ko nga ne ko faw yooyu nga xam ne moom da nga koo am te matul at waaye alal ji ko jiitu nga xam ne bu ko seet dana mat at waaye bu dee moom dong du mat nisaab faw rek ñu tàppe ko ci pour nga mën koo génne asaka mu ne illaa ba'da xawlihaa ndare gannaaw ak ayam mu ay kaamel ci ndigul ajuma fekkente ne li nga njëkkoon a am dafa toog ba am at te fekk mat na misaab nga génne ci asaka bu leneen ñëwee te loola matu misaab doo ko ci te muy ay ñetteel bi doo ko ci tàppe mu doo ko ci doon mu ne kon fa loola le da nga koy asakaal ala xawlihaa ci àpp ayam loola ci boppam day toog ba weer ba nga ko amee woon démb ci ca déwén sa bu fekkente ne gannaaw amuñu jaar yoo xam ne mooy asaka waxtu woo xamee ne weer woowu moo démb di nga asakaal loolu kon jëfeetu lañ ne dara di ko ci tàkk di ko ci boole ndax loola dafa matoon ba nga ba nga ba nga génne ko kon li ñuy wax gannaaw bi doo ko génne ak amee woon gis na démb loolu wute naag ba nga xam ne ne bu njëkk bi dafa manqué nga tàkk nga nga am ko mu bees atum lu jiitu la ay nga boole ko ci tàkk mun na bu fekkee ne nag loola la mutul woon tax waaye bu fekkee ne dafa mat sëkk benn génne ko asaka wala da nga ko war a génne léegi asaka te lee moom amagul at waaye lu fekk mat na asaka ba ba nga war koo asakaal loola moom doo ko boole moom di ko asakaal da nga koy bàyyi moom ba weer ba nga ko amee woon moom dégg dégg ngeen ko de awalan si dal wa inna xasara fekkee ne wàññi ko nañ ñoom ñaar moo di ñaari faidatan yi ñaari xarfet yi da nga leen a seet matuñu nisaab fara bi xa mu tonow fii hima ci ñoom ñaar maanaam mu jaay leen am bénéfice aw fi ihdaahuma wala kenn ci rek la am bénéfice moo xam ñaar yi la doon jënd te jaay waaye benn bi rek ci la amee bénéfice bi ci def amu ci bénéfice aleykum salaam bismillah wala benn bi daf ko teg fee jéemu ci yaxantu lu benn bi rek ci lañ yaxantu waaye mu am bénéfice ba buñ ko seetee léegi mu mat nisaab nga xam ne kon asaka war na ci waaleykum salaam wa rahmatullah kon fii ma aw fi ihdaaw ma mu mat tamaama nisaabin inda xawli luulaa fas ayub la nga jëkkoon a am bu boobaa kon aw qablahu wala mu mat nisaab ta ayagul kon fa ala xawlayhima kenn ku ci nekk at ma waxtu wa nga la wañ la amee bu weer wa dégg seeree kon loolu ñu boole di ko asakaal ci ku ci nekk ba waxtu bu jotee rek lañ koy asakaal dégg ngeen leen mu ne wa fadda bu ko defee daañu teg rifahuma seen bénéfice ñoom ñaar ñaari alal yooyu nga xam ne kenn ku ci nekk da ngay nit ba weeram dellu si waaye doo leen boole kooku seen bénéfice yi ñu àndal nga xam ne dañ ko cee boole di ko asakaal da ngay séddale bénéfice yi kenn ku ci nekk alal bu ci nekk ak bénéfice am nga nga asakaale ko ko ak moom bu baax de feer bi su fekkee ne yooyu yëpp dafa passé ba ñu toogaat nag weer mu ne kon nga xam ne ku njëkk si lu njëkk la am am na at ba benn nga asakaal ko wala asa asakaale boo ko waaye tegaat nañ ci weer bu fekkee ne dangaa am bénéfice ci ñoom ñaar wala kenn ci ñoom ñaar ba mu mat nisaab kon da nga ko asakaal inda xawli saaniyati fas ayuk aji ñaareel de li nga mujj am bu bu ñett bu ñaareel ñaari asaka ñaari alal nga am dangaa amoon ñaari alal nga xam ne ñaari alal ñi motuñoo asaka nga tàpp leen yaxantu ci ba kenn ku ci nekk am tono nga séddale ñaari tono yi ak ñaari alal yi ndax bokkule woon waxtu woo leen amee ndoo woon sa matandoo wuñu ni saat nit li kenn ku nekk gañe ci bi nit nga xam ne da nga leen di càqale ba kenn ku ci ne da nga koy wàññaale bénéfice am pour génneel ko asaka nga xam ne kenn ku ci ne mat na asaka kenn ku njëkk ci nag nga asakaal ko ba mu am weer nga xam ne su ñaareel ko di soog a am moom itam xarfet ci koy rek tono kon mu ne la bu fekkee loolu am na fas matuk atuk ak ñaareeli am am bi ngay génne asaka yi lii nga mu nirale ci waaw ku nekk la bénéfice ba nga xam ne moom la ñu amee ci alal bi ci nekk moom ngay boole ak alal boobu boole bu séddale fekk ci amoon na bénéfice yi juróomi junni ci am bénéfice yi fukki junni ci am bénéfice fukki junni fukki junni nga koy dolli fukki junni dafa def te am bénéfice juróomi junni juróomi junni nga koy def fekkente ne wàññi ko waat la it da nga koy compter ci kaw charte yi ñu waxoon ne mooy tax boo ko fi ñàkkee ñu calculé waale ko mooy boo doon daw asaka boo dee daw asaka bu fi wàññi ko waat ci bu jënd bi dañ la koy jàppee waaw waaw xawlu saaniyati xawlu saaniyati aw sàkk wala mu sikki sàkk aw sàkk wala mu sikki sàkk fii bi masalan ci jamono ji nga xam ne ci la mate xam nga dafa ne fekkente ne këri safee la ci tegu de la ci teg de لأن كانت أو قبله قال ما أفضل ما بعد سيرة منه والثانية على حولها وإن بحول الثانية أو شك فيه بأيهما وقد أو شك ولا مش شك منظرا على الجنس فيه بأيهما من في وقت ومع البنفسي kon ci ñaari ndax bénéfice bi mu am dafa sikki sàkk ndax bu fekkoon dafa xam ne benn bi rek moo am bénéfice bi mu njëkk alal bi mu njëkk am moo am bénéfice wala alal ñaari bi ci la amee bénéfice léegi nag dafa sikki sàkk ndax li ay himan ci ban ci la amee bénéfice kon dana asakaal ko fas ba tey suñu waxoon fii bi maanaam ci am ayu alal bu njëkk bi xam ne bu njëkk ba ci la koy asakaal bu ñu sikkee sàkk daal xamul ban moo ci moom dafa boole ñu asakaal ci ka baax defoo naka noonu bu fekkente ne itam gannaaw ba aju ñaareel ji ayee la soog a am ci dëkk bi mu ma asaka def koy génneel moom it te fas ayu aju ñaareel bi ndax dañuy considéré ne aju ñaareel bi moo jur loolu te kon day dellu ci cosaanam te cosaanam mooy aju ñaareel bi ay ak ayam weer ba mu ba mu kilee woon day day mu nekk ba boobu mu asakaal wa in xaala su fekkee na ay na xawluhaa atam fa anfaqaha te mu dépensé ko su ma xaala topp ayaat xawlu saaniyati atum am amu ñaareel bi naaq am juróom di aji wàññi ko kon fala zakaata asakam daf atam dafa ay tamatum mu dépensé ko ñu dem ba àgg ca fa mu amee woon alali ñaareel bi ba tey matul asaka woon mu ne moo gën mu jat bi ak aji bees bi mooy saa ida ba tey Hmm? waaw xam nga dafay wuteeg ki nga xam ne waaw ndax nit ki dafay am ay soxla te du ne du ma faj benn soxla loolu ba tey at mi ñëwee ma génne asaka déedéet li ñu ko teg moo di léegi bu fi alal ji nekkee ba ci déwén si ba weer wa dellu ci def waaye nga fekkee dafay jéem a daw asaka ñu dem ba nga xam ne weer waa ngi jege mu tey ko dem dépensé ko wala mu ci dem wala mu leb leb wala mu sàkk ci pexe noo xam ne asaka du ci war mu jàpp ne booba day daw ba boobaa nag lañ ko koy jàppee comprendre nga leen dégg nga mu ne wal mutajaddid wa bil mutajaddid bi naka noonu lay jubalee ak masalan day ñàkk asakaale foofu ci aju bees ci nga xam ne dafa juddoo an ci def tijaarati ci ci laay yaxantu nga xam ne dafa génn alalam nga mu ñëw bu fekkente ne léegi dafa am ay silaa yi mu war a jaay te bu ñu koy jënd aleykum salaam waaye naka noonu lay jubale lu mu tëjjat bi ci alal yoo xam ne dafa bees ci waaye am ci lay sijaar bi mu ngi génne ci tonoy ay silaa yoo xam ne daf ko jëndoon ngir yaxante waaye nag daf caa génne bilaa bañ am ci lu dul jaay dafa am alalam loo xam daf koy jënd ngir yaxantu jaayi ko nag luyewu ko waaye dafay loo xam ne day mel ni muy toile boo xam ne day am xàll maanaam day ñor ak mu nekk wala yu mel noonu nga xam ne bu ko defee day nekk ba at ma dellu ci ci lam ca am lam ca am donte moom lii daf koy jënd ngir jaay diggante bi mu ko daataan jaay benn mu juddu wala muy loo xam ne lii dafa meññ wala muy kuy liggéey loolee mu ca amee duñ ne gannaaw lee daf koy jënd woon ngir yaxante kon lii day fekk cosaan la ndax du bëri ko aleykum salaam ndax du cos du du du du yaxante jëgul ci yaxante bi faida lañ koy jàppee bu ko defee loola du ko asakaal du topp ci cosaan lii ba mu ko amee lam ci am bu fekkee ne denc na ko fa te jógewu fa ba diwante bu mat asaka la koy asaka moom la misaale ke xallati abdin naka noonu xal lay jaam ku mu moom mu koy liggéeyal te bi mu koy jënd jënd ko woon lu dul ngir yaxantu daf ko bëgg a jënd jaayaat diggante bi mu ko fi daataan jaay li mu ko fi liggéeyal bu dee alal di bari du ne waxtu ba ma jëndee jaam bi bu jënd fee rek ndax mooy cosaanam déedéet day bàyyi ba waxtu wam amee woon loolu loolu day mel ne xarkat daal bu bees mooy bu mënta jàdd yooyu bu bees wa kitaabatin naka noonu yooloo jotoo ku mu moom koo xam ne dafa bëgg a jotoog moom nangam la ko war a jox pour gore te par weer wu nekk wala par at wu nekk wala par ñetti weer wu nekk nangam la ko war a jox loolee mu koy jox te bi mu koy jënd daf ci jublu woon ngir commerce loolee mu koy jox du tax mu fekk ci gis bi muy jëndee jaan bi déedéet loola day xaar li ci nekk ba ay rek bu ayee dañ koy soog a asakaal wa tamratin wala wa tamratin de wala meññant meññant mi itam mustaral boo xam ne dañ ko jënd nga ne ko ah loolu moo kon du fekk ci waxtu yi nga jëndee tool bi te tool bee ko meññ mu ne ah indal mu abbarata ndaree li ñu góoreel noonu ñuy watte ñu daggee ci tóor tóor yi tàngal mu góor bi di ko wis ci tàngal ma yi ci def pour mu naf bu baax mooy taabir taabir nax li bu fekkee ne bi muy jënd tool bi dañ koy def taabir ba pare kon dafa mel nag moom la ci jëndaale ndax dafa mel ne pare na ndax meññet ni faw bu soobee yàlla mu am ah mu nekk nag ci loxoom ba mel ni bu boobaa nag daf koy boole waxtu bu ma waree asakaal dégg nga li ñu jëndoon tool bi nga xam ne ba mu koy jënd ngir yaxantoo tax kooku dañ koy yéene ci àll yax bi kon li ci kii ndax nañ daf ko koy jëndaale daf ko ciy jëndaale ndax taabir nañ ko ba noppi mooy mel ne tool bu ñu bay def bi ba nga xam ne léegi mu ngi commencé ñor ñuy xaar ñor noonu la kon boo ko jëndee léegi at ni nga ko ni nga ko jëndaale lépp nga jëndaale itam kon dafa mel ne que gannaaw def nañ taajir tool bi dafa mel ne que yëf yi ñor na ba noppi kon ba ba bis bi ñu jëndee tool bi rek la koy asaka wasu fa ak naka noonu leen ak sàmm bi di aji mat nit yi boo xamee ne itam moom dafa jënd ay xar yu bari te leen dafa seer mu jëndaale ci xar yi ñu war ko xuuf ci ko jaay ça dépend bu fekkee daf koo asakaaloon moom wala asakaalu ko wala moom ci boppam moom asakaal yi waru ko ci moom di ko asakaal mën na ko koo jaay fekk def ci ko te ajir te xam nga asaka bi kañ lay war waxtu ñu ko mënee jaay waaye mënee jaay xam nga dafa xaaral bi ñuy wattandiku moo tax bu ñu waxee foofu mënee bu ñu ko mënee jaay bu ñu mënee jaay meññeent ñu la wax waaye bu fekkee ne ndey meññeent tool bi bu fële jaay moom nga xam ne garab yi lay jënd kooku ajiwul ci meññeent mu ren waaye nag samaru bi lañuy wax bu ñu ko mënee jaay mooy bu commencé ñu mën ko jëfandikoo léegi nag fekkee ne tool bi la jënd kon dootu ajowul ci loolu moo tax mu ne ilal mu abraka wa suufa ak naka doon leen ak tàmm bi aji mat leen bi nga xam ne màgg na ba mat nga xam ne dañu xuuf rek a ci def mu jënd xar yi leen bi am valeur kooku itam jëndaale na ko daf koy asakaal ci saat suñu jënde moo xar yi lay asakaalal doon ndax du asakaal xar yooyu rek mu war ko way nit sara fekkee ne dafa nuyee wa suuf wa sara atamu bay li ci jaar ci nga yaxante zakka na mu asakaal ko waxtu wa nga xamee ne rek dégg nga ak njëg njëg da lay asakaal waxtu waa xamee ne cosaan bi ay na waxam ne cosaan bi ay na mu ne wax lu yàlla mu ndax li soroke def na ci sàq kawlul dëgri nekk ci jiw bi laxaa li nga xam te wala déet fekkente ne moom jiw jiw yi moom dañ ko koo mayoon rek parce que yéen wala ci mu jël nag léegi tool nga yaxante ndax daañu ci sàq na fekk jiw yooyu daf koy jëndoon ngir yaxante booba nag bu boobaa la koy soog a dal di war a asakaal wala kenn sàkk ci loolu mu ne am na presque am na si dëgg waaye laa biir di war ko nag maanaam asakaal njëkk in lam yakun lam yakul ahaduhuma kenn ci jiwur yi wala tool ak tool bi lépp jaar ci nga yaxante jiwur yi nekkuloon pour yaxante wala tool bi nekkuloon pour yaxante wala boog tontu li li yaxante ak mbay mi la war a mu gën a ñu ñu ah summa zakka topp mu asakaal astamana njëgg li xawli tëskiyati pour atum asakaal bi maanaam ngir mu mu mat at xam nga dafa jënd tool bi mais ni ci boppam mat asaka xam nga kooku daf koy daal di asakaal léegi nag bu ñu ko jëndee li ñu ko jëndee moom njëg gi moom boroom day toog ba mu am at soo ko asakaal ndax kenn mënul asakaal tool bi asakaal njëg gi ndax njëg gi mooy tool bi tool bi mooy njëg gi kon kon ak tool bi moom tool bi moom ak njëg gi di tool bi di ci loxo bi waaw la njëg gi boobu di ci loxo bi waaw waaw ko mënoon sa xalaat ni kon ñoom ñaar ñoom la ñuy asakaal boobu moom loolu nag mooy mooy li mënul am te xamuy lenn ñu asakaal lenn li moom moom la ñuy dàq la ñuy dàq